wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi leen nuyu ci turu sëñ Cheikh mi nga xam ne suñu kilifa si Ahmad Bari mi ngi leen nuyu turu Cheikh moom Mountakha ak sëñ Abou Sëñ di nuyu bokk yi fekk yépp xam naa dana jafe lool ndax gaa yi fi jaar ba noppi moom kenn xamu fa jaar ci yoon wii ndax tëj nañ ko noppi waaye ñu dimbali ko yàlla rek tey ñaan suñu borom dimbali ndax kàddu yi dafa mën a ñàkk waaye duñ ci mën a ñàkk rek ñoo ko wax waaye ci mbokk yi bokk nag moom képp koo xam ne ngeen bokk sa mbokk la waaye boo xamee na bokk sa bopp boo xasee xam ne kii sa mbokk la waaye boo xamee na bokk sa bopp may nuyu sëñ Cheikh Joreel nga xam ne dañoo woon ci bis bi wax nañu ne di ko def maam Cheikh Absa te Cheikh Absa boole ñaari yoon boole moom bari boole waat ci biir jëmee wax ji sëñ Abdou Si xam ne way juram ak sëñ Cheikh Absa ñoo bokk way juru jee ndax kii Xaarima Jaxate ko jur kii Ibrahima Jaxate ko jur te xaari Ibrahima Jaxate bokk ndey bàyyi Ibrahima Jaxate sëñ Jaxate moo jur soxna Absa Jaxate mu jur sëñ Cheikh Absa muy Coro waaye xaaj ma jaxati kara moo jur suñu soxna xadi jaxate mu jur suñu abdu isneg ne muy way juróom ci bët boobu waaye dañu xool sax ab sa génnut maanaam benn yoon ci ndey ak bàyyi ndax boo xoolee wàllu bàyyam maam moo am sëri mooy bàyyi maam am sëri maam maam bala isbiri maam maara ngay xool waaye yooyu juróom Ibrahima Jaxate soxna Mbàkke aw Ñaŋ eh, moo ko jur soxna Mbàkke aw soxna Mbàkke aw moo ci Ibrahima ne Ibrahima jur si Absa jur Absa jaxate mu jur si Absa kon dafa mel ne kon dafa doomi bàjjan la waaye doomi nijaay bi maam am sëriñ ci dama xarit bi jaxate doomi nijaay yi doomi bàjjan yi maam mor am sëriñ waaye doomi nijaay yi maam mor am sëriñ doomi nijaay doomi bàjjan doomi nijaay la kon mbokk yi wax rek ñu sant mbokk yu teew suñu sa jooreel wax fi léegi wax ju aw doyar di sëriñ tuwaay yoon bu dikkee xëy xoolal askan yëpp gis ñaar askan yi ñoo gën a yaat nangoo xajale mu wàcc seen diggante loolu jàng lu réer lañ kon lu ñuy wax xajoo ak xajal ak yaatal li ñu ko war a jàng suñu biir ñëpp ndax ñu ndikkee fekk askan yi bari fi loolu mu ne askan wii kat gis naa ñaar askan ba ajjulu soo ba tey ak nangoo liggéey ak nu mu toppante lañ seen biir bu àdduna dee ba ñu ñoo taqalee nañ lànk dugg ci àndaat suñu bopp ñëpp ndax askan woo xam ne ba Sëriñ Tuubaa duggee la yëkkati askan woowa ba ku tëdd sa woowee ñëpp di la màggal di teral loolu war na bu ñu fexe mu rëcc ñu ko ci àdduna ndax ku doon sëriñ Tuubaa nga xam ne ak garab sax bu fa yendu woon garab googu kenn du ko xamati kenn du ngaj ji kenn du ko gëjëtu ak bu ñu dagg dañ ko rabbi di ko jëfandikoo wax duma doomu aadama kon nañ xoolaat suñu jikko yi la taxoon sëriñ bi bàyyi lépp fekk ci askan boobu te mooy jaamu yàlla nangoo liggéey nangoo tappante war maante yàlla loolu rek bu xasee dax bu xasee nekk ci askan bu dee ci askan dara desu ci askan boobu te yàqu gi commencé na ruur ruur mi bari na waaye duñ bàyyi xel ne li ñu ruur ne mooy ci ñun ñëpp kenn ku ne jàpp ne yow rek la si biir loolu wax ne yow la bokkal ndax koo xam ne bu la ñaan yàlla fekkee woo ko te yàlla nangu la ñaan nga euh, nañ sant yàlla ndax fa àdduna jafee maanaam fa àlla fa jafe-jafe amee wajal jami axmati wa nasabi fii rahmati yamsta nasabi kuy ñaan askan ku la bëgg ngaa bokk Sëriñ Tuubaa ñu bari naan wax naan nit yu sànga Sëriñ Tuubaa amul mbokk Sëriñ Tuubaa amul mbokk kenn ku ne la baax rek nga bokk Sëriñ Tuubaa Sëriñ Saliou daan wax loolu kenn ko baax bokk suñu Tuubaa waaye loo baax loo loo bokk ko moom dañuy wax ne Ahmadou Bamba moom Mamour Mamour Diarra ñoo bokk ndey bàyyi waaye Xaadimu Rasuul la ko la ko jiitoo Xaadimu Rasuul mooy mérite bi nga xam moom da koy liggéey yàlla ba yàlla fayee ko kon bu fekkee ne mbokk suñu Tuubaa yi tudd ñu day ko am mbokk bokk suñu Tuubaa nu mbokk moom ndax askan woo xam ne bu ñu bu ñu leen sax da nga ne Mbàkke wala nga ne Buso kala jox loxo dellu la ginnaaw donte ab chrétien la dana war maa ngi sëñ bi ndax suñu Tuubaa mooy tey ci kanam bu amul ab saal sax du ko xalaat mukk ci yow suñu taxaw ci kanamam su ko defee kookee ci boppam dana am lu bàyyi xel ci yow benn si jukk mooy saxal loolee wala mu weddi kon loolu ku la ko defal war ngaa war nga njukkalaat te bàyyi bàyyi xel fi ñu toll mi ngi suñu pegg mi ngi suñu kanam mi ngi suñu ginnaaw ñu góorgóorlu baax ci defal suñu jukki yi baax a baax te gën a yaatal nit ñi yaa gën a xajal sëñ Fall yi lu am na ku mu ko waxoon nee na mbokk mu ko waxoon fii dafa deret bu foore daawa di fuur deret bu foore daawa di fuur koo xam ne da nga war a ànd da war a àtte ñëpp kenn kenn ndax koo xam boo gisee ab sandaal bi soxla suuf nga toog ci kaw kookee wóoru leen xëccoo dara ci àdduna kon dong yi ñu yàlla boole lu xëccoo ñun dara ci àdduna nañ ñëwoon jikko Sëriñ Tuubaa rek jikko hmm. Sëriñ Tuubaa mooy jéggale jël la jariñ jéggale jël la jariñ koo def nit ñi lañ topp tey sant si Ahmad mi réew mi nga xam ne moom suñu mbokk la suñu lépp te sëñ bi jox ko liggéey bu rëy bi xam jox na ko te liggéey bi kat Sëriñ Tuubaa li mu am lépp ci xam-xam la ko jëlee ñu ne liggéey bi ñu liggéey bañ wootee dañoo wax ne nañ dëkk woo borom xam-xam yi ndax mbir moom lu sos ci àdduna te xam-xam lalu ko loolu dëgër mukk ci àdduna bu ñu nappee woo borom alal yi ndax ku amul dara doo mën def dara bu ñu nappee woo borom doole yi ndax ku mënul dara doo def dara bu ñu woo borom xel yu rafet yi ndax ku amul xel mu rafet amul dara amul njariñ ndax dox baaxut nopp waxam baaxut noppi baaxut kon si envoi du ñu la ñaanal di la sant di la gërëm di ñaan mboolem bi nga ànd na yëpp ñu si wàkk Abdourahmane si Seexuna Abdou Wadoud ak mbokk yi teew yëpp rek ku lim dama jum wala doon wala noppi la raw dina yaay xit bi nga xam jite woo ñu ngi ñaan suñu borom defal ci ndam yaa ko àndal ndax at mu jot gis nañ téere boo génne boo xam ne euh, sëñ Tuubaa añ jaasa yi fi def yëpp wax ko ñu bari xamuñu woon sëñ Tuubaa te xam nañ ko ci yéen te loolu moo am solo ci sëñ bi bi kenn bañu ko dañ ko umpale te xam-xam ka képp ko teg ci moom na xam ne yàq nga àdduna yàq ko alaxira wa man nahaakum an ta'allumi wa xalifatu rahim wa man nahaakum an ta'allumi fa nahayuhu ila dara yéen tamit loolu sëñ bi bi ko wax kon xam-xam mooy li nga xam ne mooy fondation bi nga xam ne bu ko nit amee dootul dellu ginnaaw mukk ci àdduna kon ñu ngi leen tàll suñu loxo ci turu mbootaay taalibe Sëriñ Tuubaa yu jiite mu tudd Tuubaa ci kanam ma ma ma ma profité ko occasion bi waxaal leen ko ànd nañ seen kanam nekk seen ginnaaw fas yéene ànd xam ne ñooy ko loo xam ne jàpp ngeen ne Sëriñ ci dëkkam bi wala bëgg ci eh, jabootam gi wala bëgg fas yéene ànd yéen tàll nañ suñu loxo loolu ci def la ñu def ko insha allahu taala yéen la njëkk woon nag ndax xam-xam la njëkk woo ndax ku amul xam-xam mënoo defal dara sax wane nañ ci ñu ngi ñëw jàppale ñu si ci seen xalaat ak seen xel yu baax ak seen xam-xam ñi nga xam ne am nañu alal dañu ñëw ñu si seen alal ndax ñu mën a def ñu am doole dañu ñëw jàppale seen doole ñi am euh, xel yoo xam ne dañu jàppale ñu si loolu maa ngi koy sant ñëpp di gërëm sëñ Seex ñi ngi lay sant di la gërëm adduna euh, ci boppam suñu borom lu ci am soxla ndax loo xam ne ko peesee laafu yoo laafu yoo ëpp doole kooku ñu bëgg dara waxul dara ndax lu am am am na fu mu tàmbalee am fu yem kooku mu njëriñ waaye li nga xam ne dund gu du jeex dañuy wax ne bu ko yàlla day jaay at day jaay àjjana ne àjjana fépp suuf yëpp la ko jaayee ku ma jox fépp suuf yëpp ma ne ko ñu par benn nga toog bi àjjana moom laa la mu jël si di ko par benn fépp par benn da nga ma jigéen jeex waaye koo xam ne dafa fekk fexeel loo xam ne du jeex fii du jox fañ jëm muy sëñ tubaab fàggu ñu ñun ñëpp kooku ci boppam lu ñu mën a def lu may jox suñu lépp doon ay jullit doon ay taalibe yi bëggoon ñu mel taalibe mel ñu ne rek te mooy bàyyiku tox suñu lépp yéen ay gor ngeen ay jullit ngeen damay wax ne yéen de wàcc ngeen li war dut ngeen surtout yéen waa kër si coro euh, ndax da ngeen bióbu cër dañuy wax ne kër si sa absa la sëñ tuwaa dafa borom daaru mooti dafa ko sëñ ma sàmba dafa ko sëñ maam seexat dafa ko sëñ avié ñu moom la defal rek sëñ sa absa da ngay jël seen lépp lu wàcc suñu biir kon lu des ci yéen ñun ñi la desee waaye disu ci yéen ndax as gor bu jeexee boppam joxe joxe jëppam kon ñu des ñu ñu la desee waaye kon Mbàkke ñu la ñaanal suñu borom dimbali waaye fu mu amee jaay dinañ ko jox bu ñu demee waxi ko moo ino masaluna maa lakum laa tanaasaluuna bal hum yastasimuuna bis boobu ngeen xam ne liggéey suñu tubaab am njëriñ adduna amu njëriñ ndax loo fi am sans ëppale ko wala mel di wala suñu beer appli kon euh, ëppale di jëf ëppale di wax am seen adduna ëppale di jëf amul njëriñ ndax loo bari bari saay saay ëppale te addumul yàlla kon bis bii suñu bis la rawatina ñi nga xam ne ñoo ci xaaj yi ma jaxati kala euh, bokka Ibrahima jaxate loolu sax indiwu fi waaye mbokk rek ngeen wax mbokk moom euh, jëfalante rek ak ak ak yëgoo mm-hmm. ndax lu ñu mënut a séddoo dañu ko péncoo mm-hmm. kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa yàlla dimbali ñu ba mbokk gi du yàqoo ci mukk mm-hmm. euh, yi dundal mbokk yi te bañ a bokk ñi ñi dundee bokk bi te mooy rafetal ko sellal ko te jéem ca góorgóor suñ ko du kattan sëñ ci waa kat bokk def mbokk bu gis ko damay wax ne lii ko yàlla jox ay mbokk kër gënu leen ndax tey jii fekkoon ne kenn ñu topp si ko rek du leen ko jox ko jam waaye alhamdulilah rabbil alamin bi bokk yi jëlee seen lépp yoo xam ne kii kat ndigal yàlla la ñu ne ko jaayante ci yàlla jox ko seen bopp mu defal la defoon ñëpp kon alhamdulilah rabbil alamin kon jël sëñ Tuubaa waaye jërëjëf yi ndax koo xam ne mbokk lañ daan bëgg woo ci démb kenn gënu leen woon ni ñu woon ñu naan ñu la sëñ bi waxoon bi nga xamee yi doon oote yoon yi ma ngi dañoo ñëw bi wax waa Mor Dia ko yaay yow yaa sëñ Moussa yéen kilifaam mm-hmm. lii mu woote kat ñu fi woote mosu ñu am ndam kon naa bëgg ngeen bëgg waxtaan moom rek moom ba jox wut yëpp la ko jaar yoon Amadou Cheikh Ogué Samba Sadio Cheikh Omar Fouti kenn ko wax say jaar-jaar ah ba jox rek jaar bëgg démb suuf ndax ñu sonn nañu di di di di di yenn ci bi di naan ci lakk ci gafete yi naan ci na bàyyi nii def te toog nekk seen nekkoon jaam yàlla nekk seen nekkoon baaxoon na dañ ko waxee sëriñ bi mën leen jant bi fenk koo tee fenk ñu ma ko tee so mu ma tax bàyyi ñooy bàyyi ñooy woote ñooy man du ma ñëw kon ñooy di moom moom ki nga xam moom rek moo jóg ngàbbu lu xam ni liggéey yàlla ba at yàlla fay ko lépp te te kenn rëy kenn kenn rëy kooku rek am njëriñ sëñ Tuubaa du koy xeexal du ko yëfaloon sëñ Tuubaa jikko la fexeel ba koo gis rek na kii sëñ Tuubaa na bokk ci ciy murid yi may bokk ci ca murid yi nañ askay yi te bu ko accam askay murid yi mooy lu baax lu ne ñoom mos ko mu yàlla askay murid askay murid yi mm. waaye lu lu jóor yi na murid bi loolu am njëriñ ci ñoom dañuy góorgóorluwaat te defal jukka yi te yaral xale yi jàngal leen te yaral leen te tari saabu sax yi te xam ne luy dox ñun ñi dañ wax ne bokk yi ngeen baal bi seew mi yéen ñi xam ne sëriñ sëriñ bi ngeen te ñeen tudd bi dina tudd ci kaw nga xam ne moo jur seen wayjur yéen dootu la yokk ci àdduna xam ngeen koo xam ne dootu yokk nag dangay wàññiku bis kenn ku siñ dool gis waaye ci àdduna ci ku ñu gisalee doo ñëw àdduna kon xam taxaw na ñu ñu wëndeelu dañuy dem ba jax tàkk waaye dañu fexe ba bu ñu fi jógee am na ci biir ñu bàyyi fi loo xam ne ñoo ko doon Sëriñ Tuubaa fii ci kaw suuf waaye Sëriñ Tuubaa féete la fépp fii féete ko fenn jàppale ko dara te yàlla jàll sa ci yox jigéen jugee bu ko gëwut yox fu jugee bu ko nekk Sëriñ Tuubaa lépp lépp loo xalaat ne boo ko amee boo ko am li ne man nangam soo ko amoon léegi moom sa jaamu yàlla Sëriñ Tuubaa jox nañu ko ñëpp ci am na defal na loo xam ne amutoo amutoo amutoo amutoo looy bëgg ci ak yi loo soxla rek Sëriñ Tuubaa defal na la waaye yow doo def Sëriñ loolu laaj la waaw bu ñu demee ba àdduna ñu taxaw nga ko jàll bu ne taxawal yow ma yow ba ba nga nekk àdduna loo manqué woon nga ne ko am kër yi amoon naa ko amoon naa oto yu ma war amoon naa ay ay jigéen yu may dëkkoo amoon naa ay taalibe yooyu liggéey si mën a fay waaw mu ne loo defal yow loolu ñun ñëpp dañ ko bàyyi xel donte bi set da ngay jël sax di jàng di jàng jëy sunu jëy jëy sunu lixlaas ñoo di addi suñu tool baax na wala wala nga jël sax yow ay ay xarit ay beneen dox set bi nga def ni ñu naan liggéey suñu tool baax na jàkk def suñu tool dara wóoru rek man nag dañu ma jéggal xam naa ne fi may waxee ni ko déggee ndax man maa dem moo tax waaw dama fi nekk tut euh, murid laa ah, waaye sëñ bi ñeen sant baax dina gërëm boo déggee li ngay wax ci ak bokk moom doxutoon ak bokk ci sëriñ bi mm-hmm. fii tey jii màggal gii sëñ Fallu woote ko bi mu koy woote ñànk booba ma nga fa nekk doon jawriñ di liggéeyal sëñ Tuubaa mm-hmm. kon tey bu ngay indee bis bi wàllam ngeen ko jox mm-hmm. waaye da koo def nii man nag fii laa juddoo ci kër gi dara ump ma ci waaye liggéeyal sëñ Tuubaa rek am njariñ moo ko may day wasalaamaaleykum waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf euh, lay sa lay sa suhóodu kal muayyan nit ki moo ko dund rek nit ki li ñu dund lay dañ koo génne dañ sëñ bi bi bi ñu waxee sëñ Cheikh sëñ Cheikh ab camion la fi indi ay seng la la doon bor daal si seng sëñ Fallu dana ko dama bëgg nga dem ba ci yoonu saxaar de lépp dana la fa fekk de fu ne lu ne fekk na ko fii waaye as gor la ab jullit la ku bëgg sëñ Tuubaa la tey bu demee ay bokkam ñu jël jub sëñ Tuubaa bi indi ko fii. waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf wax yi daa daa gàtt na rek kon sëñ bi ñu ngi leen sant baax di rek li wax rek maa leeral li mbokk gi ba tey ndax ak nit ki mën ngaa mën ngoo xam te xamu leen mbokk nga jàppee ko noo xam ne xamee woon noonu la demee tuuti ma leeral sëñ diggante sëñ Cheikh mii muy sëñ Cheikh Dior ñoom ñii ak sëñ yi sëñ bi rek ginnaaw bi Cheikh Cheikh Thioro seen wajur sëñ Cheikh Thioro moo am sëñ moom am sëñ Maam Balla waaye ñoom seen wàllu way jur bu jigéen soxna maam Ousseynou Asta man léegi mati ma laa bi mati bu jur ma laa bi mati mati bu so moom mati bu so wax ndey bàyyi kon loolu ñu bari xamuñ ko woon ñoom noonu ñooy suñu tubaab kon suñu suñu suñu tubaab ne kaw suñu tubaab ne suuf suñu tubaab ne ci biir sëñ Ahmad indi ngeen yàq bi fu mu yoree fii ngeen teg dab di kira fii génn suñ tuwaay ci kaw génn bu suuf ndax mënoo génn maaram ci kaw mënoo génn maaram suuf bu dee gi ngeen xamee ko noonu lamb tuuleen ko nag dañ ko daj kon yàlla ngeen daj lépp raw du rayaxin yàlla bokk ca sarde yi nga xam ne dañ ko fégool ci àjjana di sant bokk yu tee yëpp si moo di ñoo lay siyaare ak bokk yu tëpp gis ku gise kuñ tudd na xam ne suñu xoset na guy di rek dañu laaj bokk yi bokk yi moom ko nañ ko bokk rek te mën ko pàccoo ndax ay nit ñu bokk te mën ko séddoo pé dañ ko péjoo rek mën ko pàccoo ñu ngi leen sant baax dina gërëm te dina ñaanal seen taxawaay ya yàgg li ngeen liggéey suñu ko yàlla ko nangu yàlla bu bokk jëfi yàq suñu borom dafa leen saxaru daari yi euh, musal lañ ci am ndox ak ndab te bokk taal yu gën a góorgóorlu te wàññi safar te góorgóorlu ci fonk berde yi baax fonk li nga xamante ni moom la suñ moo tax suñu tuwaa woote woo kaay sant ma yàlla wax suñ tuwaa ko santalee mooy li jëkk mooy alxuraan sant li ñu ko xaside yi li ñu ñi nga xam ne dañoo ñëw bàyyi nañu ay ceeb ay yàpp seen kër bàyyi fa ay ay boisson bàyyi ay am na boo xam ne jàpp ne murid ko loolu ngeen wan ko loolu barki lu leer la am na moom dara gën ko yëw ndax jàpp ne murid yi xamuñ dara waaye suñu tubaab déggalu dara ñu bëgg xam rek ñu am ci ci fànn yëpp nag loo boo koo gisee man murid mën na ko lijjanti foofa kon yoo am yoo am xam-xam na denc ko seen biir waaye lu suñu tubaab ñàkk amul suñu tubaab rafetlu dara dara kon bu ngeen taxawee nag gii yàlla na yàlla taxaw ci yow yéen ngi liggéey liggéey boo xam ne ñëpp rafetlu nañ ku bëgg lu baax dafa la ñu ñuy ñaan suñu borom musal leen te dimbal leen suñu seex ñeneen seex yi suñu fall musal leen jabar suñu seex sa gépp tey jox li mbokk yéen doonte am lu ci lu jël ci tim na ngeen ñu yàlla fasaat ñu loolee ba dara ci ba jàpp ndax kon loolu diis yàlla tey ñaan yàlla bu dara fa ci ko jëm ko doxee woon ba suñu suñu kii nañ fexe ba nekk ñu fexe jàll suñu suñu bopp ñu itam bu ëllëg si bu ko teg ci xale yi mu nekk loo xam ne dalu jàpp te lii aw yoon la ci loolee ndax ñu xamantuñu woon ñu xamantu woon xamante nañ ñu amantuñu woon amante nañ kon ndax li ma xam li ma wax day tàmbale ne koo koo koo xam ne sa bopp la waaye koo xam ne bokk sa bopp la nit ki damañ bokk fexe ba si digg ci jàppale ci dimbale ci yàlla te kenn ku ne daal na jàpp ne jàpp ne moom ba nga suñu tuwaat liggéey jàpp ne ñu am bu lépp baaxee moom la waaye bu la yàqoo moom bu yëpp defee dara baax sant nañ ne gërëm leen maa ngi jégalu suñu seex ñaan jox si Ahmadou mu àggale gis moom waa àggale boppam kon si bi mën naa ñaan rek waaw loolu abo bi jëwriñ suñu wàll yi ñu ànd ak suñu sax bi teewal ko fi teewal ko njaboot gépp ndax lii kër suñu wàll ci am néeri ci kër gi rek waaye sa so waaye suñu wàll la waaye xaritam la woon nag jëlaat seen sacoor mu jox ko kon mbàkke yi ñu sant baax gërëm te ñaan yàlla dimbal leen te dimbal ñu ba euh, yaakaar yi ñu am yëpp dara du tas ndax suñu tuwaa sant nañ ne gërëm leen baax suñu kon nga ñaan mbokk yi ñu tàggoo benn ñoom tàggoo gudu tàggoo waaw yàlla ko ci at yu bari asalaamaaleykum wa rahmatullah kon na ñëpp taal jërëjëf kon kàddu yi ñu tëj ko bu ko defee sëriñ Cheikh Bachirou Mbacke Cheikh Abdoul Khader dafa am réunion bu mu nekk ak comité bi bëggoon naa teew moo ñi mu ko àndal